Euh, d' abord ànd nañu bokk ñoom woo alors ba ma ñëwee euh, dam na leen may xeex yi ngeen def yëpp ma da ngeen ma cee fekk. Mm. ma ne leen la preuve a combien d'imams au Sénégal te woowu leen xëy na xamewu leen leen position yi sur le plan public. Mm-hmm. kon man man mënu ma am seen complexe yéen. Mm-hmm. kon dañuy toog lu ñuy wax ñu wax ko. te tam ma wax leen benn affaire maanaam valeur yi tax man may xeex mooy valeuru jàkka valeuru daara valeuru alquran. Mm-hmm. du ma ñëw sumbi ko ci bunt bi fii topp leen ci lu leen neex. loolu bokk na ci li ma booleeg ñoom. ñoo toog ba réunion man leen léegi lan la ñuy xeex ñu ne ma noo li ñuy xeex c'est clair mooy affaire pétrole man ne non c'est pas clair <laughs> man ne c'est pas maa ngi fàttaliku le ministre actuel. Mhm. de comment il s'appelle de euh, de de l'assainissement. Mhm. Cheikh Tidiane ñu ngi toog première réunion man maa ko proposé ne ko coordonné ñu ngi xool na te suñu biir nag man leen réunion bi du démarré <laughs> te en plus ñu on doit être dix maa fa njëkk presque man ne ñu ne sër bi imam moom vrai militant la maa leen njëkk ci réunion bi. Mhm. heure bi ñu joxe. Mhm. vous êtes pas sérieux vous n'êtes pas rigoureux. Mhm. ñu commencé xoolante man ne duñ commencé réunion bi wóoy am na man man Cheikh Tidiane Dièye bon sociologue nga. tàmbali tàmbali. donc j'étais quand même engagé et tout. yooyu ay problème interne yoo xam ne j'ai pas besoin de crier ça dans les marchés dehors. Sénégalais yi xamuñu yooyu. ñoom da ngay wax ci mbedd yi rek alors euh, bi ma mais dañu xoolante encore non non non dañuy xeex affaire pétrole bi ma ne ma ne Cheikh Tidiane Dièye tu es sociologue ma ne ko tu sais très bien que dañuy xeex affaire pétrole bi loolu du vision. c'est vague ma ne ko man je vous propose une vision man mii ñoom ña fekkoon ñëw ba am moom ak ñeneen man leen la vision en tout cas man lim tax ma ñëw fii naa leen ko wax suñ ko partagé ñu xam on partage suñ ko partagé ku nekk jël sa responsabilité man je viens ici pour lutter pour que la gouvernance des ressources minières, pétrolières et en général naturelles, et je dirais même le bien public, mmh. sa bonne gouvernance soit une réalité au Sénégal. loolu moom fii nii mooy sama vision. Mhm. Mhm. ñu ne ma oui loolu mooy moo vision aussi. <laughs> am kenn ku wax ne oui mais man li ma ci bëgg a rajouter mooy que fi nekk nii on doit commencer à manifester à perturber le pays jusqu'à ce que le pouvoir soit dans la rue et qu'on le récupère ma jóg taxaw na. Hmm. man la man nag je suis pas venu et d'ailleurs même ce pouvoir là dont vous parlez je considère que suñu première manifestation na nekk benn rassemblement public où on donne la parole y compris mm -hmm. à la coalition au pouvoir. oui mm-hmm. ñu expliqué wu. ñu expliqué wu ci yenn yi ñu leen di accuser mm-hmm. ngeen tiiñal leen ci kanam nit ñi. Mm-hmm. les gens sont braqués parce qu'ils étaient dans le radicalisme ñu non non non ñooñu ñëw taxaw wax fi ñooñu bàyyi. en plus jour boobu <laughs> on va xamal ma leen ah mais je suis c'est un combat citoyen d'abord pour man dañ installer ay antenne partout dans le Sénégal d'ici trois mois tous les Sénégalais soron que ni li ñuy lutter mhm. c'est une lutte qui transcende les partis politiques et aussi on ne lutte pas pour fitna wala daaneel nguur gi fi nekk dañu war a obliger nguur gi fi nekk mu doxal yoon mu doxal yoon man de loolu laa xam ci samay valeur te loolu tam laa jàpp ne Sénégalais yi moom la ñuy xaar ñu ne woy nangam nangam euh, après maintenant le groupe y a un groupe WhatsApp yu waxtaan ci mbir et cetera et cetera mais je vois dans le groupe externe des termes agressifs palabres comme ni mu ko waxee chaque seconde am ku bind benn paragraphe am on doit faire ça on doit pas faire ça ma ne nii ça c'est du désordre pas comme ça qu'on doit euh, s'organiser et après maintenant mu commencé am une bataille interne au parti politique au départ parti politique yi mm. ñëwuñu woon bi affaire bi commencé am ampleur ñu commencé def suñ première sortie maa après parti politique commencé ñëw bi ñu commencé ñëw nag commencé buuxante ñoom tam ñu commencé réunion intenable intenable daggante bi parole kenn mënul déglu sama morom groupe WhatsApp bi tam pagaille plus maintenant non non on a fait maintenant un combat politique contre le régime ma leen je me retrouve plus dans ça et je quitte proprement cette affaire là je continue le combat citoyen bi ngeen ma fekkoon ma bëggoon ànd ak yéen pour jox ko empleur mhm. ngeen bëgg ko doxalee nii. Mhm. dem naa sama yoon. Hmm. donc extra waay waay dañ ko récupérer il paraît pale dañ ko woon. waaw lool loolu loolu la doon waxal. waaw que yow da nga demoon finalement ba jege président Macky Sall. doon ko défendre ak yooyu. voilà loolu lañ doon bi. voilà loolu lañ doon wax waaw mais c' est de bonne guerre parce que euh, tuumaal nit moom Sénégal am nañ ci expertise. Hmm. mais euh, alors que je pense que après je continuais toujours à avoir des positions de principe. yoo xam ni ba tey moom laa am nii. Euh, sur ces questions la donc après ñu doon wax loolu yëpp nii c'est pas rationnel quoi c'est même pas logique. parce que euh, su dee nii man sama ambition moo doon euh, saper cette cette lutte là ak jege le pouvoir là ça sa saurait. Mm-hmm. ça se saurait. dinañ ma gis ñu jox ma dara ci pouvoir bi. Mm-hmm. wala gis sama train de vie changer. Mm-hmm. wala nangam nangam. yaakaar naa ni nit kii lu mu ñaaw ñaaw njort <laughs> euh, mënul xuus ci wala mm-hmm. boobu kenn xamaluma fi dara loo xam ni mm-hmm. euh, mi ngi noonu mm-hmm. benn yoon la la la ma chef de protocole président woo ne ma président nee na il tient à ce que nga ñëw comme invité ci le contenu local bi ñu doon ma ne ça ça concerne les Sénégalais damay dem ma dem fa déglu yëpp ni ba ma ñëwee def compte rendu ci sama page Facebook daal ne léegi lii laa fa gis ni mu demee gis naa ni désordre la parce que nangam ak nangam nangam jàpp sama ñàmbur et cetera. Mm-hmm. donc euh, je suis resté sur cette ligne là. Mm-hmm. Mm-hmm. te ba tey ci nga nekk. ci laay nekk ba tey incha allahu taala euh, je reste euh, voilà comme personnalité dans la société civile je suis engagé euh, sur le contrôle de l'action publique. mën nañ la woowee ku yaakaar nag ni ku yaakaar nag la woowee lanceur d'alerte. waaw kay. je suis je suis lanceur d'alerte. terme boobu président am na lu mu ci waaw lanceur d'alerte ba wootee ab loi bu mu bëgg ñu tëgg ko. pour wow. protéger bon. les lanceurs d'alerte. toujours dans le cadre de la bonne gouvernance wow. il faut aussi faire attention mais il faut pas se précipiter et il faut bien encadrer cette loi pour mu bañ nekk ay dénonciation de hmm, détail. délation ku mere nit ne alerté na. waaw jàpp leen ko dëmb la et cetera. alors tamante dëmb il faut faire attention. Hmm. Euh, il faut faire attention à baax na. il faut faire attention le, le diable est dans le détail beneen bi aussi mooy que man sama liggéey pour man euh, sama vision mm. dépassé na lanceur d'alerte ah xam nga lanceur d'alerte je sais dénoncer benn affaire mm. mais man j'ai une vision de la gestion des biens publics mm. boo xam ne dépassé na rek lancer alerte ci benn question donc euh, mais ci ci biir la bokk maa ngi lancer tout le temps alerte sama poste yëpp mm-hmm. c'est des alertes comme ce matin rek. ci environnement ci accident ci yeneen ak yeneen traitance animale hmm. sur la mendicité infantile hmm. sur et cetera donc voilà sur la corruption ma déggee benn booy doon wax xam nga lan waaw imam boobu affaire yi ma ne ko ba ma commencé dénoncer corruption bi juddoo ko quand j'ai commencé il y plus de trente ans nekk imam di xutba hmm. gis nga Macky Sall bi mu doon wax par exemple j'ai mis le coude sur certains dossiers ci premier mandat. Mm-hmm. Mm-hmm. sama sermon laa ko dénoncé daal ne est-ce que lii c'est normal président di ko wax. Mm-hmm. boobu xale yi wax fii naan Imam Kanté dafa nooy wala bëggul xeex. <laughs> jumtu judduwul. te pourtant ba ma waxee loolu nekk mënoon ma ci yeneen yeneen yu ma fi dénoncé. maa ngi fàttali le protocole de Rebeuss. je l'ai dans un sermon. après Idrissa euh, de me damay xeex li may xeex rek nit ñi di gis ku nekk nga am ci sa lecture bopp. Mm. Euh, quand j'ai dit nu mu tuddati euh, lu ma waxati woon ci. protocole de Rebeuss. voilà am na un jeune. Euh, bu ma wax waaj affaire corruption bi j'ai même oublié l'idée mais dama ko wax ni yooyu yëpp ba ma koy dénoncer. yow sax juddoo woon. yàgg na xamoo ko woon sax lu fee xew. Mhm. Euh, parce que boobu temps xamoo woon sax ne di nga judd nekk sénégalais. Mhm. ma ne ko bul ma wax loo de. Mhm. te boobu temps man maa ngi nekk sénégalais di xeex. ak yu bëree bari yoo xam ni tey man su dul woon principe ci man gëmuma ko woon comme ni ma ko waxee tey jii ci ci lu nooy lay nekk. Mm. yàlla seede na ma ni. dofuma yéen a ngi may dégg. est-ce mm. naa leen ko dof. <laughs> waaw. yàlla seede na ma ni. su ma bëggoon lu nooy war naa ko mën a am. si ce n'était pas là que la pour la vérité moom. kenn ah, waxatu ko mm-hmm. Mm-hmm. Ah, kon da ngeen may woo leen bon en plus ma xaw ma lan je à Paris je viens demain. Mm-hmm. après ma garé ci benn kii. après <laughs> voilà quoi. bokk ci imaam yi am bës. voilà <laughs> mais du du ce serait pas ma personnalité. ce serait pas donc lutte yooyu dama ci duggoon par euh, conviction personnelle. et d'ailleurs ça me coûte très cher fii. d'un point de vue euh, politique et mhm. social et religieux et tout mhm. euh, parce que je suis pas un conformiste mhm. donc loolu ku ko xam xam nga ko ku ko xamul xamuloo ko ku ko bëggul xam tam doo ko xam mais l'essentiel mooy je reste sur cette ligne engagé sur le plan du combat euh, citoyen je suis un citoyen qui fait la veille sur les biens publics sur euh, la marche du pays donc ñi fi nekk tamit nañ ko xame noonu les nouveaux pouvoirs na ma nekkee woon Euh, di critiquer pouvoir bële. njëkk ba euh, ak tamit am ay réserve si ñoom. mais que léegi ñoom ñu nekk au pouvoir léegi nag dama leen critiquer comme ñu nekk au pouvoir mais en même temps di apprécier les mesures yu ñuy jël yoo xam ne dama jàpp ne euh, baax na. seen premier pas yi ci réew mi mun nga ko évaluer wala da nga jàpp ne teel na les premiers pas qu'ils ont posés depuis ñu nekk fi bon. wala teel na. am am mën nañ ci évaluer yu positif par exemple. par exemple les mesures sur les mesures foncières mm. c'est positif euh, problème mu alerte comme j'ai dit il faut mm. voir maintenant le détail de la loi Donc, dans le principe c'est positif euh, par exemple réunir les par exemple tout le secteur de la consommation pour les prix mm. c'est positif yu mel noonu donc yoo xam ne wax dëgg yàlla nit ku nit ku bëgg lu baax simplement mm. nit ku bëgg lu baax rek logiquement mm-hmm. Mm-hmm. war nga d'accord ne serait-ce ci principe bi mm-hmm. Euh, voilà voilà yooyu par exemple ces ces mesures là je suis parfaitement Mm. d'accord que ni c'est c'est des c'est des options positives. Sénégal ak ni mu bindoog li ñu leen doon waxal yépp ñu toog dem ci kilifa diine yi woote réconciliation. loolu ça aussi c'est une mesure positive. Okay. parce que je me suis dit mais écoutez ma ne leen Sénégal ne serait-ce intelligence euh, politique et sociale. Mm. nan la ku bëgg jiite Sénégal nekk président Sénégal nan nga mën a nekkee président Sénégal am jàmm ak Sénégal te doo wekk. ak jox wàccuwaayu mm. Sénégalais yi. ñi ñu wekk mm-hmm. ci diine comme tey ji mm-hmm. kilifa diine yi mm-hmm. ci euh, tarixa yi et cetera dafa am histoire bu leen fi installé sénégal yi adhéré ci ñoom euh, pour une raison donc ñooñu cër boobu da nga leen koy da nga leen koy nangul ba pare ànd ak ñoom ci cër boobu pour taxaw réew mi parce que ñoom tam loolu mooy seen cër kon euh, ça m'aurait étonné te bu amoon sax man dinaa bind que ñu ne non président Diomaye na toog ci palais bi moom réew mi lay gérer xam naa na réew mi ñooñu bokkuñ ci. <laughs> ak dañoo euh, di jouer rôle. <laughs> ñu ngi jouer rôle boo xam ni. di def lu président war a def yenn eh, moo tax donc moo tax ma ne euh, c'était même assez truc de mm. donc donc yooyu voilà ça aussi c'est une mm. ni mu demee euh, ci jàngo bi aussi c'est normal aussi parce que ah, ñooñu tamit dañ fi am rôle. Mm-hmm. ba pare <laughs> xoolal les dernières. mesure bizarre là yu Macky Sall jël. Hmm. avant muy dem gis nañ par exemple jàngu bi. position bi ñu ci am. bi ñu ci am et cetera. Hmm. position courageuse. waaye euh, donc il fallait même bu dul loolu. Hmm. mais par principe comme ni ma waxee rek la présence chrétienne au Sénégal depuis ah il fallait. maanaam yem sa salaam dafa am na xadis bu muy wax. ñi nit ñi jox cër jox leen cër. bu mu defan ci yow. soo bëggee jubóog nit ñi. voilà <laughs> ñi ñu jox cër da nga leen di jox cër nangul leen seen cër. ñëw kay l' essentiel mooy la ngay lijjante ak ñoom na nekk rek loo xam ni. Euh, askan bi. dañ ci gis seen bopp la jëm yenn sa salam mais bu muy bu muy bu muy organiser euh, par exemple Médine. Mhm. ansaar yi ak muhaajiroon yi mhm. ay ay responsable lay waxal ci ñoom. Mhm. du mbooloo mu yëpp ay ñëw ci moom. ba mu demee euh, Badar par exemple au départ il y avait une résistance parce qu'ils étaient pas préparés pour une confrontation armée. mais nag de dafa toog rek di leen déglu après waa ansaar jël parole. ne ko on va pas reculer. waaw muhaajir yéen par ne ko aba reculé mun leen nag ah sama xel dal na rek daal di mën a engagé ñooñu suñu bañoon il pouvait il pouvait pas engager donc mm-hmm. toujours réew mi da ngay xam ñi fi am cër mm-hmm. euh, mbooloo yi jox leen ko nga fexe ba yow cër boobu nga nga ànd ceeg ñoom euh, di jàllale les messages positifs mm-hmm. les bonnes choses à faire et sama ça me rappelle euh, Ali Haïdar écologiste on s'était rencontré ndeysaan ci ci benn euh, à l'université c'était un séminaire sur l'environnement et cetera et cetera ñu invité woon ma alors bi mu ñëwee nag ma ne ko ma ne ko vous êtes un disciple du prophète Noé Noah musulman la nga hmm. euh, mu ma ah oui pourquoi vous avez dit ça ma ne ko mais vous devez savoir que Noé est le premier écologiste il a pas seulement refondé l'humanité mm ndax yàlla alag na ñëpp mu des moom ak mhm. njabootam mhm. te ci njabootam ñi mu àndaloon ak ñi gëm mhm. njabootam rek ñoo ci am ay doom ñetti doomam yi ñeneen ñi amuñu doom noonu ci yàlla def mooy le déluge de Noé ma ne ko mais attends boo demee ay alxuraan dafa ne tam de de chaque espèce mu jël un couple donc il a il a reconstitué l'écosystème mu ne ah ça j'avais pas compris ça vous <laughs> êtes un disciple de Noé mm-hmm. Mm-hmm. Noé a replanté monde sur mm-hmm. plan écologique pas seulement l'humanité sur le plan de la foi ah oui après mu mu ne mu ne secrétaire bi jo jox joxal ñu ma ko sama numéro ni ko après mu mu jaar biir bu ñu waxtaan que temps boobu il était à la les murailles kii murailles vertes ni yàlla dogal on s'est pas vu ba ba mu jógee fa alors euh, lan moo tax ma wax loolu sax ñu ngi ñu ngi ñu ngi réer donc ñu ngi woon juste ci peut-être euh, ba tey ci gouvernance bi ak euh, voilà rôle yi ci euh, protection de l'environnement ah, l'intérêt ay ay daat li tax ma indi anecdote boobu mooy que bu mu bu mu ñëwee benn jour ñuy waxtaan mu ne mais imam vous savez par exemple il je pense c'était la famille Medina Gounass mm. je crois wala une famille à Louga mm. mu ne dañ ma dañ ma dañ ma woolu mu ne ñu ne marabut moo ma ne naa ñëw fekkee jàng yi yu mel noonu daal euh, et cetera benn cérémonie religieuse daal ma ne ko ah oui ça c'est un c'est une marque de mm. respect d'honneur pour vous et cetera mm-hmm. euh, mu ne mais tu sais quest que vous savez qu'est-ce que j'ai j'ai proposé au au protocole du marabout le monsieur qui m'a appelé mm-hmm. ma ne ko je suis honoré et tout je vais venir mais est-ce que mën naa ko ñaan dara rek mu ne marabout ne ko bismillah ne ko mu ne ne ko est-ce que dina ma may su ma ñëwee ci cérémonie bi avant cérémonie bi jeex ñu seet nu ñu koy arranger ci protocole bi ñu may ma benn message sur la préservation de l'environnement. Mmh. parce que foofu noonu daanaka léegi àll kese la te amoon na ay garab dinaa leen wax genre garab yi nga xam ne moo adapté foofu ak nu koy mën a replanter. mooy fi ñuy def daaka bi voilà. damay am incendie presque chaque année. bindoon naa ci ñu attaqué ma. parce que dama na leen c'est simplement daaka bi sur le plan spirituel y a rien à mais sur le plan aménagement c'est le rôle de forestiers. Mhm. loolu boo ko sëriñ si xëccoo. te mm. ko jox ku nekk liggéeyam. ñu mhm. mhm. waa ñu ne na mi ngi attaqué affaire daaka bi je suis épuisé à <laughs> cause de ça ak cër bi ñu leen war a jox voilà mais le prophète sallallahu sama sama boobu mu bindoon à il a utilisé l'expertise d'un d'un guerrier pour le plan de guerre tey ku ku fi ku fi doon doon doon sëriñ yéen sa la mooy sa sang mm-hmm. il a utilisé l'expertise d'un expert en guerre xubaab moo ko ne mais plan bi nga teg nii ñun ñu taxaw fii ñoom ñu kii nii yàlla la ko wax yi wala sa xel mm-hmm. yonent ne ko ne man xaw ma dara ci affaire guerre dama yaakaar ne rek bu ñu taxawee nii yonent sax musul def guerre mm-hmm. nee nañ benn benn benn benn ñaari groupe arabe yi doon xeex te moom mu bokkoon ci Quraysh yi mu jël benn yat dóor benn waay waa ji daw loolu de la def ci guerre mu ne ko loolu <laughs> loolu laa def ci guerre tubaab ne ko ah loolu moo tax mais yem de mu ne ko guerre demee noonu de hmm. fi ay bakkan mën nañ fi ne ko waaw mu ne ko bàyyil ma wax la hmm. lu ñuy def man lii def naa ko xaw ma ñaata at ñaata ne ko vas mu def plan bi yonent ne ko nañ hmm. ma bind sama article ne le prophète a validé l'expertise de un expert en guerre kon tamit la marabout bi def daaka bi maa ngi koy waxat encore fii dafa war a nangu forestier yi ak tous les environnementalistes environnementalistes ñu proposer que un aménagement mooy éviter au lieu que ñu doom dans le fatalisme genre woy woy ba bon dañoo ñëw pour jaamu yàlla rek lu ñu fi dal tam nangam nangam mhm. ñu aménager mhm. comme ça on va régler mu nekk gestion de risque et tout mhm. ñu aménager ko de telle sorte que ay yuy lakk fii ak ak gaz yooyu ñu indaale bouteille gaz yi yooyu yëpp ñu régler ko éviter ko ça peut se faire mais mais sénégalais ñu ngi noonu alors euh, Ali Aïdara daal on note positivement les premiers pas. oui oui. ah ah positivement nekkoon positivement ah, Ali Aïdar ne ma loolu la wax marabu bi. Hmm. mu ne marabu ne ko bien sûr ah oui loolu naa ci sawar loolu parce que ñun Cheikh danañ ci wax ak nit ñi fii léeg-léeg mais nangam naa. ma ne voilà par exemple un exemple de conciliation. Oui. Mm-hmm. voilà c' est un événement religieux mais comme li nga mais un événement religieux justement fi ñu ko au Sénégal mm-hmm. dénaturé ko. Mm-hmm. et pas par mauvaise foi juste par. complaisance manque de vision. Euh, ak manque d' adapter les choses. Euh, avec la réalité changeante. mooy que un événement religieux on doit en profiter pour régler des problèmes existentiels. Euh,